dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gii di réew mi ko di jen ñu xëy fekk fa Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xam ne mooy xalif général des Tidianes mu xëy di wax ay dëggam état bu Sénégal ci bàyyeeku gi nga xam ne maanaam bàyyeeku nañ ko ci lu jëm ci xeex nga xam ne moom lañ doon xeex coronavirus kaddu yi ba ko Serigne bi yëkkati kilifa yu bari ñoo nga foon Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi ma nga fa ndax état bu Sénégal njiitu réew mi ba mbir mi doog di commencé dafa waxoon ne maanaam ci ab guerre la ñu nekk Serigne bi nag nee na Sénégal bu nekkoon ci ab guerre ngir xeex woppi corona coronavirus jamono ji maanaam teg na ay armam bàyyeeku gi nga xam ne état bu Sénégal bàyyeeku na ko xalifa bi nee na àndu ci benn yoona ndax nee na état bu Sénégal dañoo waroon a jàkkaarloo ak askan wi wax leen lu leer nañ ñi wax leen lu mën a dugg ci seenu bopp wax leen ne leen jàngoro ji day rey ba pare amaguñ ay matukaay yoo xam ne moom lañ ko mën a fajee seriñ bi nag la mu gis mooy état bi jamono ji dafa démissionné ci mbir mi maanaam xeex coronavirus sëriñ Mbaye Sy Mansour nee na état bu Sénégal daf cee démissionné te maanaam responsable maanaam kilifa du ci mbir yéen a di enquête ñu fekk fa sëriñ Mbaye Sy Mansour Mansour la mu xam le nee na lu jëm ci woppi coronavirus ak ci réewum Sénégal ak ni nga xam ne moom lay màggee ci réew mi maanaam ni muy lawee loolee nag lu doy waar lu garaaw sëriñ bi tuddee ko l'heure est grave ñu fekk ci yéen kaay gi di Sud Quotidien sëriñ Mbaye Sy Mansour di yedd état bu Sénégal ci bàyyeeku gi nga xamante ne bàyyeeku nañ ko te sëriñ bi nee na soo muy tuule maanaam caaf mën naa xam yéen kaay gi di réew mi ko Quotidien sëriñ Mbaye Sy Mansour ci ay kàddoom wax na lu leer état bu Sénégal nee na leen génn leen ci lu jëm ci dossier yu sensible yi rawatina lu jëm ci wàllum jumaa ak wàllum jàkk ndax jullit di soriyanto loolee amul fenn yéen kaay gi du l'observateur mu xëy di ñu xamal naan ñun jiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag ma ngi janoo ak ay jafe-jafe ndax ana nan lay def ba yokk li nga xam ne mooy loi d'habilitation bi ak nan lay def ak état d'urgence bi njiitu réew mi di Macky Sall jamono ji ma ngi si ay jafeñ-jafeñ waaye nag war naa wax ak askanu Sénégal yéen kaay gi du source a mu xëy di ñu xamal naan ñu kaso bi nekk si Diourbel war nañu fa wax ndax am na ku fa ami woppi coronavirus yéen kaay gi di réew mi ko di jee mu xëy di ñu xamal naan ñu li ñu war a wax mooy sénégalais yi nga xam ne dañu leen a tere dañu leen a interdire ñu dugg union européenne la ko waral mooy woppi coronavirus ji nga xam ne mooy jaba jonge ba tey ci biir journal bi ñu fekk fu Moubarak Lo économiste bi wax na ci taux de croissance bu Sénégal ak nag économie adduna beek lu soxal wàllum woppi coronavirus wax na ci pic bi ci Sénégal wax na ci bàyyeeku gi nga xam ne moo am ci marché yi ak lu jëm ci wàllum takk masque yi ak li ñu nemmeeku ci transport bi yéen a kaay gii de libération xëy yóbbu ñu diwaanu Ndengler ak coow li nga xam ne jamono ji moo na fa cobbay ak askan wi nga xam ne dañoo mer ba maara day taale ndax lu toll ci trois cent hectares la ñu fa xàppati la ñu fa daggal Babacar Ngom bu Sedima loole la askanu ndeng leer mënut a wanaas ñoom nag mer nañu ba futu nee nañu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg libération na lii sax dafa ñaawa Moustapha Diakhaté mi nga xam ne ay jamono mu jiite woon groupe parlementaire benn bokk yaakaar nee na coow li nga xamante ne moo am ci ndeng leer lépp Macky Sall la ñi nga xam ne ñoo dëkk ndeng leer ñoom nag nee nañu duñu ko nangu njiitu réew mi di président Macky Sall journal na ma nga na te nag ab moom mooy xeeñ Seydou Gueye la xam na njiitu réew mi di président Macky Sall ma ngi ci quarantaine waaye nag matukaay yëpp ma moom ngir doxal nu mu ko neexee réew mi ko di jee ni symbole colon yi nga xamante ni bari ñoo ngi wax ne dañu ko war a dindi ci réewum Sénégal rawatina li nga xamante ni mooy fédère bu ba nekk ca Saint-Louis gore nag ñoom daal nañuy baral jéego yi ndax place de l'Europe bi nekk gore changé nañ tur maanaam génte war nañ ko tuddee ko place de liberté et de la dignité humaine yéen kaay gi di sunu làmb mu xëy di ñu xamal lan ñu Gaston Mbengue dafa proposé woon saa Thiès 40 ngir nag mu dajee ak rëg-rëg Sa Thiès lànk Gaston Mbengue contacté na guy gi yéen i kaay gi dee saata mu ñu xamal lan ñu Barcelona ginnaaw bi mu nulé ak Celta Vigo Real Madrid gagné Espagnol de Barcelone jamono ji journal bi nee na Barcelone ubbil na yoon wi Real Madrid ngir mu jël championnat bi